أبي العباس أحمد التجاني وجزا الله خير الجزاء شيخنا الأبر سندنا وعمدتنا ووسيلتنا إلى ربنا مام أحمد داك رضي الله تعالى عنه سقانا الله وإياكم من بحور أنواره بأعظم الأواني في ذاك الدار وفي تلك الدار وبعد إخوة الإيمان نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw kàddu yooyu nga xam ni sant yàlla moo ci jiitu ndax kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah kon bu ñu taxawee balaa genn kàddu di ci topp kàddu gi war a jiitu mooy kàddu sant yàlla kon ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala ci xéewalug lislaam gi mu ñu defal waaye tamit ci boole gi mu ñu boole ci njabootug yonent bi alayhi salaatu wa salaam Eh, di nuyu waa dëkk bi yëpp eh, di leen ziyaara waaye nuyu waa dëkk bi ak ziyaara bi dañ koy teg ci loxol imaam ak chef de village ndax alquran moo ni waatul buyuta min abwaabiha boo ñëw ci dëkk bañ a am jafe-jafe da jaar ca bunt ba te buntu dëkk nag suñ ko waxee mooy imaam ak chef de ñu ñaanal leen yal yàlla taxawu leen yal yàlla sàmm leen yal na yàlla kattanal leen ci njaboot gi yëpp ci war may yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nuyu waa kër Mbir Ndaw yëpp te di leen ziara di nuyu waa daayira bi te di leen ziara waaye nag nuyoo waa daayira bi ak nuyoo taalibe yi ak muqaddam yi dañ koy teg ci loxol Cheikh Jibrilu bu Baye Serigne Baye ñu koy ñaanal Baye yal na fan yi gudd yal na taxawaay bi yàgg ndax ñoom buñ fi teewee maam Cheikhou Thiénaba lañ fi teewal seen teewaay teewaayu Baye Serigne Xasan Seck la ak mbooleem njabootu maam Ahmadou Ndak yëpp su ko defee ñu ñaare leen yàlla jéego yu nu soqi pour ñëw ci ñun yàlla na nekk jéegay ngëneel ak jéegay tëbbu yéeg suñu borom incha allahu kon su ko defee ku ne xam na ni dafa guddi te programme guddi la incha allahu dañuy joxal kaddu yi rek xam naa mbokk yi incha allah bu demee ba bàyyi war a jël kàddu dañ leen jox ngeen ubbil ko incha allah su ko defee. kaddu gu njëkk gi dañ koy jox imam su ko defee mu ubbi tant bi wala jotaay bi ci ñaan incha allah kon ñu jox imam Abdoulaye Diop moo nekk bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin wa kafa summa salaatuhu ala ibadihi allasina stafa wa ma bikum min nicmatin fa min allah واجعل كلامي راصدا ومرصدا وفكرتي نور وقلبي أرصدا سدد لساني نور جناني صف أماني وسد برائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki dëkk bi ci turu sunu waajur alxaaji Ibrahima Thiam yal na ko fi yàlla yàggal te wéral ko lañ leen di jottali ay kàddoom muy kàddu waa dëkk bi yépp jaar ci ñi mu ko seqal ci siin Bakar muy bàyyi alxaaji Modou Diop ak kër ware góor muy sëriñ Mandaw Thiam ak ñi nga xam ni ñoo ne ci quartier yépp ak tund wii di nootoo gu jamaa gépp monsieur le maire nekk fi nekk ca bopp ba yàlla dogalit mu bokk ci doomi dëkk bi ak ilimaan yeeg notable yépp ñooy joxe seen kàdduk dalal gan ñi nga xam ni gani lislaam lan duyufu rahmaan ci njiital Cheikh Jibril mi nga xam ni moo fi war a ñëw moo fi ñëw war fee waxtaan ñu bokk ko taataan di ñaanal yar nako yalla defal tawfiq di dalal mbollem gan ño xamni joge nañ ci ay dekk ñew fi tay ci kër mbir ndaw sekti jotaay bi ak wa kër mbir gep ci turu chef de village mu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal bu baax itam di leen wax marhaban ahlan wa sahlan waye tam di kontan bu baax ci jotaay bi ak jotaay yu mel nii di rafetlu bu baax itam jotaay bi ak kilifa yi ndax ci al adabul murid liñ ci jàng mooy sëriñ ak taalibe moom taalibe léppi saahiri sëriñ bi moom la war kon nag bu sëriñ ba jële lenn ci wàllu saahiram di ko jege sëriñ di ko jege taalibe ba loolu dañ koy tudd rek ci mbaaxook sëriñ bi waaye duñ jàpp ni lu ko war la kon lépp sëriñ bi rek ci zaahir taalibe bi la war kon nag sëriñ ba daa nekkoon fële taalibe yi di ko fekki kon nag tey bu ñëwee fekk ci taalibe yi ñëw itam ci dëkk bi kon loolu mbégte mu rëy rëy rëy la kon dañuy jàpp ni gan ñi gën a am solo te gën a màgg ci tund wi tey moom la dëkk bi di ganoo moom la dëkk bi di safoo te am na ci jaam yoo xam ni fu ñu dugg rek yàlla dafay yokk tawfiix yokk fa barke te nu ko yaakaar bu baax ndax sunu maam yi dañoo laxasoon génn dem seeti ëtt yi xam du njaboot gi des fi di téyandoo na loolu ba tey fu njaboot gi nekk rek ñooña ñëw fekk ci njaboot gi sagan leen ñaanal leen ñaax leen kon loolu tawféex ju rëy rëy la ndam lu rëy rëy la yal na ko yàlla barkeel ni ilimaan junjee tam ci njabootu dëkk bi ba ci ñi nga xam ni ñoo xewle tey xew-xew bii muy xew-xew bu lislaam ah ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaye di ndax sëriñ bi xam na ko ndax sëriñ moom saa su eh, ñëwee seet si bi rek am na lu mu xam ci moom wante loolu lépp mooy kon ñu ngi ci liñ war a nekk ñu ngi ci yaatal gi ñu ngi ci boole gi ñu ngi ci diine ñu ngi ci lislaam ñu ngi ci sax itam ci li nga xam ni moom la leen seen maam ya bayilon kon ñu ngi ñaan bu baax sëriñ bi nga ñaanal wa dëkk bi bu baax baax yalla yokku leen defal leen tawféex ci li ñu yëngu ci walu mbay bi ak li nga xamni moy tollu way xalé yi yalla gëna a liggéey bi waye nga ñaanal no tam sunu maire bi nga xamni yalla da dogal li dog ci ay dogalam mu nekk ci premier mandam ta ñu daan ko invité muy joggé fanen fo sore sore di fi ñew tey nag mu bokk ak ñun di yeewoo ci dëkk bi bokk ci waa dëkk bi sëriñ bi ñu ngi la koy ñaanlu bu baax di ñaanlu ci njaboot gi di wax wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam xam naa sànq sax li ñu waroon ubbee mooy Cheikh Baye Jibi dafa ànd ak njabootu boppam ci biir njabootu boppam boobu moo àndal eh, ku ñuy wax Baye Mbaye Seck bu sëñ Abdou Karim Seck mu ngi ci ak Serigne Sabe Seck bu Baye Maodo ak Serigne Daouda Seck bu sëñ Maodo ak Serigne Amsam Seck bu sëñ Maodo ak seen Mori Seck bu sëñ Maodo ak sëñ Mam Mori bu Baye Abdou Karim sekk kon Baye ji bi njabootu boppam la àndal ñu leen di ñaaral seen ñëw ci kër biir yàlla na doon yokkute ci waa dëkk bi waaye doon tamit yokkute ci diine ci incha allah su ko defee kàddu yi ndax ñun ñi fi toog ñëpp benn yitte rek la ñam moy umbu suñu nopp de taataan te deglu Baye Jibi ndax yaakaar na ne wa keur bi nam won ngeen ko lol way am nañ yaakaar ni bu jëlee kàddu bi di ngeen kontaan yeen ñep su ko defee bés bi tamit dafa am ñu ko dara jaalal bokku na ci ñooñu ku ñu wax monsieur Maguette bay nga di la gërëm bu baax baax baax waye su ma la gërëmee maangi ngi sa doom yi nga andal yépp di leen nuyu di leen jox seen way dalal gan ñi nga xam ne ñoo and ak sëñ ji ñepp ak ñi nga xam ne ñoo dekk ci bitib dekk bi ñoo yek ci fi way delu wat rek ci bir dekk bi sante bu baax suñu ayima yi dama tok fego ak ñoom di Imam Abdullah job ak Imam pap sank rek ma ngi fi gis sëñ Abdou Aziz ak ñak ñee ñu ni di gërëm bu baax comme niko Cheikh Ibrahima waxe sànq muy chef de village waaye ak yeneen chef de village yu mu bokkal dëkk bi di sunu ndijaay Alaaji Ibrahima Thiam sëriñ Modou Diop ak sëriñ Mandaw Thiam dëkkal di sumay rakk ak sumay mag yi nga xam ne tey ñoo fi wuutu sunuy waajur te yàquñu dara ak xalifa bi nga xam ne naka fi yàlla bàyyi di sunu waajur bàyyi Modou Faye Mbaye mbayeen ak canaba canaba yi sëriñ bi dundin wu rafet la dund waaye dundin wu rafet la ñuy dund ak waa dëkk bi sëriñ bi sa taalibe yi fi nekk xawma lu ñu xamul walla lu ñu mënul waaye waa Kër Mbir sax laay wax damay wax xam naa leneen am na faneen waaye wax waxdatul muslimin benn jullit fii boo fi ñëwee tey sëriñ bi yàlla xam na ne ñépp nga fiy gis ku nekk fii toog loolu mooy baaxu kër mbir mooy baaxu tund wi te loolu mooy lislaam kon nag yàlla buñ si yàlla jële kon sant naa ñëpp sant nañu waajur yi nga xam ne tey sunu waajur làqu na comme ni ko ñëpp a waxe sunu yaay nekku fi waaye terewul waajur yi ñu desee ñoom dañ noo téye dañu wax kër mbir yëpp ñu téye waaye commune bi yëpp ñu téye kon nag ñu ngi sant yàlla ci loolu kon nag yàlla na sa borom ba dimbali ñu ba fépp fu nu dëkkmal rek di saxoo alhamdulilahi rabbil alamin yomb na yàlla mën na ñu yàgg fi teewe ay déwéni déwén duñ fi jaamu yàlla yàlla nangu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen baal ñu wax ndax laaxar wa sëñ bamba dafa waxoon ni wa kullu wirdin yuridul murida li xadaratillahi walan yahida siwa intama ila al jaylani أو انتمى لأحمد التجاني أو لسواهما من الأقتاب إذ كلكم قطع على الثواب te bam koy wax moom sëñ Bamba tuddul sax boppam dañu yow mi bëgg am wuti yàlla ba am ko nee na demal seeti góor yàlla gu ni wax Cheikh Abdul Qadir Jeylaani nga xam ne moom lañ doon woowee sultaanul awliya mu ni walla nga dem seeti ki nga xam ni moom la ñuy woowee Seydi Ahmad Tijaani nga xamante ni wa huwa mumiddun wa gayruhu mustamiddun mu ni ñaar ñooñu ku la ci neex wala sax ci aqtaab yi damul wëri ci ku ku la doy mu jox la kurus nga zikkar dem ci xadratul ilahia kon Sëriñ bàmba kii baax na te gore na waaye tamit moom rek moo fi musa wax ni ilayya qaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini loolu nag cërub yàlla la ci moom yal na yàlla fayal ñu ko kon nag waa kër mbir waa kër Seexu Canaba bu nu jëlee bis tuddee ko waa kër Sëriñ Bamba loolu yaakaar naa ni delloon na buum ca booy booy ba kon nag waxdatul muslimina bi Maguette Mbaye doon wax léegi lii rek daf koy dëggal aussi tamit daf koy firndeel te jullit ñi fu mën a nekk rek ñoom ñëpp benn lañ ndax innamal mu'minuna ixwatun fa aslihu bayna aqawaykum wa taqullaha laallakum turhamun kon su ko defee ki yor seen kàddu ci moom ci ñoom muy daayira waa kër soxna Bali Muntaxa mooy soxna Ami jërëjëf papa ay soxna Ami moom moo yor seen kàddu soxna Ami na jige si su ko defee mu joxe kàddu yi boo xoolee jigéen ñi moo tax ab yar rekk am solo ndax waykat bi dafa waxoon bàyyi albintu tafxaru bil adabi laa bil qarabati wan nasab wa jamaaluha bi xisaaliha laa bil jawaahiri wa zakab kon ñi boo leen xoolee nga xam ni ñoom xasida yi ñuy jàng am na jeexintal bu mu def ci ñoom bismillah ah bismillah بعد أعوذ بالله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وك جليتي وك طالبي نيغ لين نيو دي لين زياره دي لين جوخ سين واتي واي دي جيتال سي نيو بك زياره بي سيرين بي مو جال لين نكو سي مبولن كليفا بو خامتاني تيغو في اك mboolem julit mo nga xamanteni si ni ñong lay gis fi waaw suñ togaay fi nak xamna waji du gudd dañu baaxo baaxoogul di wax su mbolo ko manu mo jëm rek e, san santaat nag bu baax wa daara ji ñi nga xamanteni si ñoo jël seen bis bi jagleel ko suñ kuréel gi muy kuréel soxna Baali Moutara muy loo nga xamante ni si nii dafa rafet ci ñun daal ñu kontaan si lool ba instant yi sax mënuñ see wax lu bari sax ndax kontaan bilaay ndax bis bu mel nii su ma dee xool ba xool rek ñoo ngi koy soog a am man si dëkk bi man ci lu ma gis man ndax yaakaar naa ne yoon yi bari na fi lool waaye bañ jëlee seen parrain ni mu monsieur Maguette mbay marraine bi dañoo ñëw ni kuréel soxna Bally Mourtada mu nekk loo xamante ni si ñun soxna daayira bi donc kontaan si waaye koo nga xamante ni si yaa ngi uyoo si biir daayira Ansar dañ see kontaan gis sa bopp te yaakaar naa ne tey wane nañ ko fii te suñ kuréel gi mooy mooy kuréel soxna Bally ñëpp xam nañ ko ndax daayira Ansar dañoo baaxoo woon soxna Bali moomu soxna Bali Mourtada doomi sëriñ Mourtada la mu sëriñ tuubaa léegi dafi daan ñëw di ziyaare si sëriñ Abdou Aziz Gaye suñu sëriñ suñu jëwriñ bu mu ñëw di ko ziyaare nag ñun dañ fa daan teewe léegi nag ñun suñu kuréel gi nag dem nañ ba ñun ñi jigéen ñi war nañoo mën a def soxna Bali mii suñu royuwaay pour mun ñun buñ bëggee ñam kanam daal léegi nag si leen ko jëlee duppee ko suñ bopp léegi nag soxna si moom bi mu demee ba yëg lool daf say kontaan trop lool sax bañ ko ba dagg ay itam yëpp ne xaar ma dem il faut ma dem siyaare ji leen ñun sax nekkunu ñoo fi jógee dem di ko fekk ji fam ne mais moom moo déplacé ñëw fekk suñu fii nii ñëw amal benn ngont bu am solo waaw si ngont moom moom dañoo ñun kontaan guñ si kontaan ba tey sërënd woon mboolem daayira moo nga xamante ni si nekk na ci dëkk bi nañ fexe ba yëgal ko bis bii mu nekk loo nga xamante ni dafa rëy si ñoom lool léegi nag ñoom nag si la ñëwee woon si ñoom yëgal leen ko ak yeneen daayira yu nekk si dëkk bi léegi nag ñoom nag xam naa si lañ ñu gisee fonk ñu respecté ñu yëg ñu nag ndaxte koo ku ekkati bis bu toll nii jox la kan ni la yow laa ndayaleel amatoo fayam la lépp lépp yëg-yëg la yëg-yëg ndax nit moom su la yëgee amatoo lenn loo nga xamante ni moom koy fay ñun moom ñoo ngi kontaan si ñoom bu baax xam ne nag mu suñ kuréel gi nag moom ubbaluñ ko kenn albaab maftuux la ñuy wax ku bëgg dugg rek yaa ngi ci biir ñëpp a ci biir.

daara ji bisam su tv la ni bégee ay waay di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji samsu tv ay ba aljana